ci Touba Wakam fii nag kër yu bari dañu leen tabax R plus waaye bile bâtiment moo lukki suñuy gët R plus 4 bii mu dëng ci wetu ndeyjoor bi bile batiment naam noppeegul waaye tënkuwul ci benn anam yu ñuy tabaxee kër lu ni mel nag mën a jur jëy ci jege ñaale yi. kër gi c'est pas normal c'est pas normal parce que gis naa mu def nii te bii mu ngi ci kub kub. fii ba Medina fii ba fu ne genre bâtiment yi ñooy ñooy daanu rey seen njaboot reyaale ñeneen indi problème. bërëb bi sax nag waa DESCOS di direction bi yore lëpp lu jëm ci surveillance ak controlu suuf si Dakar dal di natt waaye bi la aaye askan wi faalewuñu ko ñu ngi amal seen dem ak seen dikk ci ni mu leen neexee mu mel ni dara xewul. mais benn néeg kenn waru ko yóbbu bokkatar yéen benn néeg. matul ñaar matul ñetti benn néeg amoo ah, mooy li ngay fay hôtel foofu rek ngay nekk mais lii nii bu daanoo moom ñoom kenn du des man de lii ma dem fanaan ci mbedd moo ma gënal fanaan fii. Cheikh Diouf moom courtier la. muy ñaawlu bu baax a baax ne ñi nga xam ne ñooy joxe kër yi lekk-lekk xaalis rek moo leen yitteel. lu ñu ñaawlu la parce que nit ki moom boo xoolee sa bopp sama bopp kase ba nga xamante ni yéen ñii doo ciy prêter bu boobaa booy lor boo doon lor sa bopp kase sax baax na mais boo xoolee da ngay rolaare ñi nga dëkk parce que boo xoolee fu mu toll nii boo yoree oto da ngay mujjee wiiri doo jël risque pour jaar fii muy xale yu ndaw yi sax yaa ngi dañ fiy nekk di jàll mais risque la boo xoolee parce que à tout moment mën na wàcc gars yi dañ topp xaalis bi ba mu xibaar biy fësal ne kër yi nekk ci wet gi ña fa nekkoon ñëpp jóge nañu fa amul lii nii ab firnde la ci askan wi nag di sàkku ci nguur gi benn mu jël ay matuwaayam génne ñi yeewoo ca yooyu le bërëb beneen bi mu daldi di daaneel bile bâtiment ci nu ma gën a gaawee